waaw tamxarit mu at mu bees la ci ñun musulman yi nga xamante ni day at moo xamante ni am na julli goo xam ni sax ak ñaan goo xamante ni suba ku xëy war nga ko def ndakaaru sax bari na ñoo xam ni farataaluñ ko ba ñu bari duñ ko def mais julli la goo xamante ni ku xëy moom nga war a def def ay ñaan ñaan yàlla fekke atum déwén parce que fi mu ne nii at mii la yàlla di désigné ñiy fekke déwén ñi ñi ñi maanaam ñiy dem ñiy at bu doon kassin da ngay wax yàlla fii lay defee ñii apte pour mën a xam nga àdduna film la yàlla mooy producteur bi yonent bi sallallahu alayhi mooy acteur principal bi seytaane mooy chef de bande ku judd am nga rôle boo dee sa rôle jeex na léegi nag bis ni ki tey jëm suba la ñuy xool ñii seen rôle jeex ak ñuy continuer waaw toog rek xam nga man nag damaa bëgg cere loolu la yàlla dogal ndax daanaka koor gi sax yu ci bari damay jaayante rek xam nga suba dañ ko war a woor ak tey muy jour yu rafet mais cere moom dama ko bëgg damay xëy toog bu nu bu ñu xëyee fii chaque année sunu kër yi def julli gi ànd ceeg sunu kilifa Cheikh mbay mu jiite ñu ñu def julli gi def ñaan yi après yeggali koor gi bu nu dogee. taajaboon baatu naar la taajaboon nag ñu d'habitude ni nu ko jàppee di ko defee surtout les artistes ñu ngi ciy dugg ñëpp léegi sax animateurs yeeg ñëpp mais am na ci boo xam nag dóor la rek voilà maanaam occasion la nga dem seeti say géer ñu teral la ñu ci bari noonu lañ koy defee mais am na ci ñuy dem bay xaabaabal di sol yére yu jigéen wala yére yu góor jigéen ñi di sol yére góor te yàlla moo wax ni rëbb na bépp jigéen buy góorgóorlu ak jigéen ak góor guy jigéen jigéen man mën naa ko def sax tamu tamu tamu bon parce que bu ma tëbee rek ni la duma ko def mën na vague parce que ah, waxuma en tant que oustaz parce que oustaz bi tey mën na taxaw joxe leçon de nangam mais danga maa laaj may répondre waaye warut ma def ko ak ma ñàkk ko def moom du lu war yenn saa yi ñuy jaawale ki nga xamante ni dafay nettali wax ji yàlla wax ak jëfam moom en tant que tel parce que tey jii ni yàlla dafa xaraamal nangam ci sag mata di mën na la dab ba nga def ko lekki gàtt xel mën na ni pourtant moom def na ko nangam fekk nga def ko nga ñàkk ko def taxul mu war voilà. waa xëy na dinañ lottu sax en tant que taalibe di wax nit naan ko nangam waaye dañuy fàttali ci li nu mag ñi dénk rek ñu wax ko kenn ku ci nekk nag noo ko déggee maanaam muy noonu waaye ñun dinañ lottu en tant que tel naan nit defal nangam ak nangam. mooy at la moo xamante ni da nga ciy vérifier parce que at li wolof di wax rukk mën a kan at li muy jariñ ci nit mooy nga xool li nga xamante ni ñàkk nga ko nga rattrapé ko maanaam tuub ci woor ci yàlla jéggal la ci say bàkkaar xam nga góor góorgóorlu ci ba nga xamante ni say rëcc-rëcc yi amoon ci féete sag matadi ba say jaamu yàlla matul nga fexe ba matale ko ndax loo ci weesu rek ñàkk nga ko te xamoo ba xam déwén dina la fekk ndax nit ku nekk deeng la dàq dina la jot te loo ci dund sax anniversaire am na lu ci wàññiku kon dundin wa sax dafay mat a bàyyi xel kon at mu bees ñëw na du ñàkk mu tombeek anniversaire lu nit léegi nag la nga cee def mooy xool yi nga xamante ni moom nga manqué ci lu jëm ci yàlla nga yokk ko ndax yàlla moom moo yor yërmande mooy jubal ñëpp di ñaanit yàlla ci kàttanam ak mbaaxam mu jubal ñu ndax lott na ci di def lenn te moom namm ca jubal te ku mu namm ci yow yërmande rek dina la jubal ndax yàlla ku mun a tafay du la liggéeyloo kon at mi ñu ngi ñaan dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan yàlla ji defal ñu ci sutura ak teraanga ak màggal gii nu jëm yée bépp yéene bu ci mbokku taalibe am yal la yàlla kàttanal ba nga def ci lu foofu sa njott di profito ci occasion bi di sukki ndax Sénégal danoo ñàkk kilifa gu mag di Serigne Abdou sunu baay sunu maam ndeysaan bi koo xamante ni maa ngi ciy waxtaan ak oustaz Pape Hann barki démb ci téléphone ma ni ko bi maa Abdou demee xëy na ruu yi ñoo ñàkk parce que ñu ngi doon wettandikoo al amin bi Serigne Cheikh demee kazalik ruu yi ñoo ñàkk mais bi al amin demee ruu yi ak jëmm yi ñoo ñàkk ndax moom moo représenté woon moo tax am na sax ñuy wax li Serigne Babacar Sy radiyallahu taala mi ngi door génn àdduna ngir lan taxaw gi mu taxawoon kon demam bi yàlla nay yërmandeem ndax ya seytaane moo bari doole rek ak nit mais kilifa yooyu bu nu demee nit ñi waroon tiit defaruwaat ndax koo xamante ni boo ko yëgee ak boo ko yëgul boo tëddee di nelaw moom mi ngi lay gàddul ci sa borom loo xamante ni di la tuubal di dox ci social di dox ci lépp yoroon la sa baatin ba mu doy kooku bu demee wax dëgg yàlla war nañ ci war a bàyyi xel defaraat ci lu bari jubbantiwaat ci lu bari kon ñu ngi koy ñaanal yàlla tas ñu ci barkeem ndax Cheikh Ahmadou Kara bi Serigne Cheikh demee rek am na taarif bu mu ci def parce que ñun ci lim nu yare mooy ñun ñëpp benn la taalibe nag dañ ne la liñ gaa ngi rek weeral liñ gée ngi weeral nag fu liñ gi nekk ak fu mu aaju loolu suñu yoon néew ci weer rek kon yàlla nañu yàlla ji defal dégg-dégg taalibe defal nu dégg ak topp làkkal nu ngërëmal Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni gi nuy sàkku ci daraje Cheikh Ousmane Mbacké Noreyni xanaa amoon naa ci benn sa benn ndeysaan sëriñ bu seetoon benn taalibe ci jamonoy taaju ba sëriñ bi ñëw taalibe bi xam a ginaaru baraamaan dafa seer kilifa gi bu xëyee rek di waxtaan bi ak taal bi ni ko ah sëñ bi tey looy kiwee ah, ngay def tuuti soble ak tuuti soos ak benn baraamaan ko def ñu xëyaat ci ëllëg ah, bi tey looy añee mu ni ko ah, defaat tuuti soos ak tuuti soble baraamaan <laughs> mujj gi sëñ bi doo wax sax taalibe bu ko xere naa ko tuuti soble tuuti kii ak taalibe bi xam ne baraamaan la <laughs> taalibe bi nag bi mu dee ba sonn mu gàddu kuuram leen ni ko sëñ bi tey damaa bëgg nga wax ma loo loo añee kon ka comme que boobu ba léegi ñu ngi nekk ci baramaan nga defar tuuti mbaqul saalum rek